des fois mépris sax dafa am ci affaire parce que man dama setlu depuis ngeen di wax non dañuy ñun dañuy constater hein dama setlu depuis ngeen di commencer di kiiwante kenn sax du tudd sa tour morom te ñun dañu am culture aussi da koy compte. mais tudd naa léegi Ousmane Sonko. Oh, wa mais non non defal nak légui amna ko doom doon wax léegi. Abbas Abbas te defe naa depuis bobu légui léegi ngi lay doog a dégg Ousmane Sonko. Mm-hmm. waaw non non xaaral rek mom du la tuddu doo ko tudd da ngeen di loolu lañu wax. sànnante xé garwalé nga jéggal ma ci kaddu gi c'est la réalité. dopp bobu ba légui moi en réalité dans nday aussi il faut que le ko teg parce que ce qu'on <laughs> li constaté. je préfère pour me juger est-ce que ñii ay doomu parce que l'action, euh, action da nga en anglais euh, action speaks louder than words ah. li ngeen hein diko diko diko ko diko waxanté mom lañu mëna waxante sukkandiku si ki parce que vous êtes des politiques aussi vous pouvez nous mën ngeen ñu emballer si ben discours bo xamné vous êtes des politiques da ngeen wax pour moi taxawul c'est fu mu ne extrême wax nga am na benn extrémisme moo fi am entre ci ñaari relation yi c'est ça commence à s'installer comme haine bi am entre entre le pouvoir et et et Pastef mi commencé di ñëw côté boobu parce qu'on entend quand même des choses yoo xam ne da lay wër ni donc mënu leen di ba en même temps aussi di ko di du embellir d'al. et ñu après finalement chaud et froid bi peut poser poser problème pour moi, on a de la chance au Sénégal. Mm-hmm. parce que moi, j'ai toujours dit hein, et, je l'assume hein, moi j'ai toujours dit que euh, Yewwi Askan j'ai toujours dit que Adji Sarr m'a créé moi j'ai toujours. astafurlah waaw mais mais bay ma wax ni ma non non monsieur le maire nak non monsieur le maire nag fi lor nak ñu dañuy wax nak dañuy ki bon man sama sama sama sama sama conviction personnelle. moy man dama mësa gëm que ni. Adji Sarr mo créé Yewwi Askan et et li mo koy prouver heureusement que vous n'êtes pas allé plus loin en tout cas une partie parce que yeen beureut rek depuis depuis sax bi ñuy déposé sous. Euh, élection législative ba mu problème bañu recaler recalé ñenn ñi y avait eu des accusations ñi ñoko tay ñi ñoko ñëlé ko ñële donc euh, tension bi dafa teel a entre yéen te boo boo leen nee coalition dama yaakaar né coalition bi c'est des gens qui ont une même vision wax fa deug yalla te bo leen mën am même vision lo mënti euh, yak wala nga wax président Macky Sall il est parvenu à maintenir ben benn coalition. pendant au pouvoir au pouvoir pendant ñaata année. pendant deux mandats quand même. pendant 12 ans. lolo quand même c'est il faut le faire maintenant yéen demagu leen commencé gu leen depuis sa commencé wul parce que lui pour man monsieur le maire oui wax nga ñu euh, juridiquement li nga tenir def et tout ça mais au na ma bu problème bi boo ko amuloon boo leen ko amuloon ak à Pastef euh, euh, Abass Fall bi du tëb wala keneen ku fay nekk kii lay doon Pastef moi je man loolu laa gëm man gëm naa ni xeex bi moom moo ci ci instance ci institution yi maire yek moy lepp moo fa bi ngeen di xex ak mo fa te ce n'est que le début. te ben moment aussi il faut pas que xex yi nga xam mom moy am entre ñu retrouver ko ci règlement de compte ci bir ci bir maire def ngeen ma li nous fii la dindi ñun tam ñu leen di xaar côté balé nous on ne vous a pas élu pour que ngeen def te il faut qu'on consomme quand même yenn yenn divergence yi c'est profond c'est pas une petite histoire aujourd'hui c'est une bataille de pouvoir di d'opposition. mais maintenant damay dégg opposition di opposition plus que pouvoir di l'opposition. c'est un constat depuis trois mois quatre mois les gens ne se battent pas contre le président Macky Sall ou Benoît APR Moi, je les j'entends même plus ça c'est beaucoup plus hier à nous ñuy xeex seen ni di daxante ni di ki et on est à six mois des élections su fekké ni non la affaire bi démé nous aussi on vous met devant vos responsabilités mooy que à la limite waru leen won ànd depuis le début parce que sen ànd bi musul nek ànd bo xamné c'est productif par rapport ak avenir bi ngeen bëggal Sénégal yéen a ne yéen a Askan mi da ngeen bu gagner ensemble bu gouverner ensemble da ngeen téla xam nga dafa am woro ci ay kàddu bañ a ci dara ah mais c'est profond même sur les propos dafa am yoo xam ne da ngay dégg que ni ñii nawante wuñu ñii respectante wuñu ak en tout cas intellectuellement niveau affaire yu cuune affaire lii affaire loolu la ñuy dégg ah donc quand même nous les Sénégalais je pense que on a beaucoup de chance pour que affaire bi teel a tas maintenant parce que yéen boo leen nekkoon ci pouvoir bi mais doo leen mën a gérer réew mi parce que ay ay kuy yuy nekk ci benn mbalka la loolooy dëgg donc heureusement que seen Yewwi Askan bi en tout cas une partie bi wokk ah parce que booy parti yi si gën a parce que dafa am solo ñeneen ñi ñu ciy du ñu ciy tudd yëpp dafa am solo pour man bu yeewi askan wi daxee taxawu Sénégal euh, Khalifa Sall ak Barthélémy Dias yëpp ni ñuy attaqué Ousmane Sonko noonu la ñu war a attaqué Habib Sy attaqué ko Déthié Fall attaqué ko ñoom ñëpp parce que. exclusion bi c'est tous ces partis là ñom ñoko def pour que pour que nous les sénégalais non pour que nous les sénégalais ñu xam que ni ñaar ñi ñu et moi j'aime bien man j'aime bien ñoo xamné D'accord d'accord bokku ñu idéologie bokkuñu jëmukaay jëf ñu dara ñu assumer ko dem ki jaar qui la ki jaar na il faut que affaire bi doomu ndey yeeg yooyu ngeen arrêté ko te nga xam andu len bokku len vision bokku len idéologie bokku len nit bokku len dara ngeen dem après nit ñi ñooy choisir mais après après parce que après affaire ñun duñu xam nu mu démé dal mais d'air si je peux me permettre